ñu maandaam benn jigéen taxawaale fugguñ buntu këru kenn naan may ma ku xëy xëy nga daan sa doole buñ jullee cinq six heures ma matin aw nañ yoonu gaar ba ñetti sa aw nañ feneen ñi ngi ci marché bi di kotti kottal dawalun dara lu may suñu doomi étudiant yii suñu doomi ouvrier yii nga xam ne bëggul lu may jóg tere seeni ndey tere seeni baay yéen ñu tax di sonde ndax man léegi tey ma toog mënatuma sama morom noonu te yéen ku leen jàppale ngeen jàpp ñu bi fii am na ay ouvrier maçon yaa ngi fi menuisier métallique yaa ngi fi menuisier loo bëgg mi ngi fi kon nag sëñ bi su la yàlla dimba tee nga yëkkati mbaa nga am ko yëkkati neel coppeki suñu doom yi ñaar ba ñetti teg ca ñu jàppale ñu waaw ndax wax na ma ko suba nee ma su ma amatee lu may liggéeylu te ku dëkk ndaam man ko dinaa ko ko jox moo dama koy fàttali façon métier la boo bëgg am na ci xale yi am na ci xale yi kon ñu bëgg nga jàppale ñu jàppale jeeg ji ci financement yi financement yi avant tout financement bi ñàkkum ndox mi lamp yi dëkk bi lëndëm na ndox mi ak mbedd mii ci suba ban ne ma defaral mbedd ma ne noonu laa baay bu sëñ bi ñëwee xam ne mbedd mii day am ndox su nit ma ne may ay camion suuf ñu sëkk su ñu ma ne oto boo xam ne bi day manque ndox mi mu manque ko ndax mbedd bi suñu mbedd la mbedd central la moo dem al azar sëñ Murtala bi lu war a sell la ndax mooy buntu dëkk bi bu lamp yi leeree Mbàkke ba la heure bu ñu neex jóg bu ma jógee fajar gi sama sëriñ bi moom may ba tali ba su ma lamp yi leeree bu ma jógee da tëddaat ci àllalam bee da xam ne dara du ma laal su ñu amee oto mbalit biy dugg ci biir dëkk bii balaay sa bëri xam nga ñu dëkk école ba mënoonoo yenu di ñëw ci tali bi te oto bi tali bi rek lay lay lay romb dugg ci koñ bi suñ ko amee baax na suñ amee benn oto manque douce boo xam sax day taxaw fii ku bëgg bindu jox ko gasoil mu manque sànni la ci àll ba bëgg nañ léegi nag olof ñaay nee na caaxaan faa xëy dëgg a des dimanche soriwut waaye dimanche nga ci dimanche bii bu jàllee beneen dimanche nga ci dimanche sa soxla day ñëwaat ku ñu jàppale ba nga ñuy defal leer naan ci suñuy bët boo ëllëgee boo ñu soxlaa dana ndaw safaak mar sax wis la li nag mooy dafa am ñaari discours yu ma fekkee te dama leen a jàpp wala am na lu ma ci jàpp muy bi soxna si jiite mbootaay gi léegi doon wax dama dégg mu ni Serigne Galas bëgg nañ oto buy dindi ndox mi bëgg nañ ndox mi ñëw ci koñ bi bëgg nañ làmp yi leer yaakaar naa yooyu yëpp wax na ko de bëgg nañ ay financement bëgg nañ ay emploi pour ndaw ñi je waa ñiñ fal juróomi at ñiñ fal juróomi at ngeen bokk ci ñi leen faloon ñu def fi juróomi at te lii ngeen di dagaan lépp daal sotti ci ndax jotul ngeen changé leen. mais changé leen leen ngeen teg fi ñoom Serigne Galas bu ñu ñëwee defuñu ko bu ëllëgee ngeen changé leen loolu mooy fulla teg ngeen leen fi juróomi at defuñu fi dara. nañ leen leen changé teg fi ñeneen ñooña buñ ñëwee liggéeyuñ li ñu waxanteeg yéen defuñu ko bu ëllëgee ngeen changé la loolu mooy dëgg kon nag kon nag am leen fulla ak fayda ngeen jàppale liste bii nga xam ni ñëw nañ ñoom am na ñu ñëwoon ni dañoo bëgg a def ngeen jox leen defuñu dara jox leen ñeneen ngeen essayé am nañu yaakaar ne ñooñu danañu def beneen bi ci des mooy dégg naa léegi. sëriñ bi doon mujjee wax mu wax lu am solo président de la république li mu réalisé ci dëkk bi waxuma ci Touba ci dëkk bi yëpp suñu ko bëggoon di wax fii la ñuy fanaan daanu nag dajul suuf mais lu ci nekk dafay am ñu koy tàmbali après am ñeneen ñu ñëw sof boo ëllëgee am ñeneen ñu ñëw àggale ko mais ku bëgg a wax ni lépp baax na wala def nañ lépp. wala ku ñëw taxaw fii bëgg ngeen jàppale ko mun leen dinaa def lépp mënu ko day am lu mu def bu paree keneen ñëw am leneen lu mu def ñii di ñëw bu ñu ñëwee am lu ñu def bu ñu leen ñëwee def leneen bu ñuy indee ndox ñii indi courant ñii indi leneen ñii indi leneen bu yàggee mu daj kon nag li ñu leen di wax mooy jàppale leen sëriñ Galas ngir lii mu jublu mu am ci ndam. moo tax ma ne man ma wootee fii sama kër ndam ne man kat ki ma ci njëkk a tàllal loxo mooy président de la ay bokk ak ay nit nit ñi moom loo wax ñu gise ko ne ne lu bari jóom nga war a woon wax lii war a woon wax laa a tàllal fii kan laa koy tàllal moo moo moo moo jox ma loxo xale yàlla am do su ma ko joxut tim maanaam la nga xamante moom laa doon liggéey di ci dund ba léegi dinaa ci mën continuer waaye même bu ma ko même bu ma joxul loxo yi yow mii nga xam ne jiital na la rek ngay sama sama xarit sama lépp war naa tax man lépp ma yow ba nga am ndam loolu mooy li war ci man kon nit ñaa ngi nii bokk yaa ngi nii du ma ci lim kenn parce que ñëpp a fi yow bokkal baay a ngi fi samay rakk a ngi fi samay jarbaat fi samay mbokk a ngi fi samay dëkk doom fi samay xarit a ngi fi ñëpp ñu ngi fi li la doon la xaar ba ngay ñëw yàlla dogal na woowoon nga ma ne danga bëgg a ñëw fekk mu xawoon a xat ma ne woon bàyyil ma dem soow lii ma defe doon naa ko def dakaar avant may ñëw démb rey naa sama bureau ay xar woo ña nekk ñëpp dugg ci koñ yi wax ak ñoom leen yéen ñëpp na ngeen dimbali ngeen votel président Macky Sall ba mu am ndam daa di fas yéene yi ñëw soogu ci ànd ak yow ñaari fan yi nga xam ne des na ma fi boobu maa ngi doon jokkoo ñi fi nekk ñëpp ñuy dugg porte à porte lu man lépp def ko tax politique moom lu dara politique ñi ngi ko seqal rek la da gis koo xamante ni day waat ci yàlla ne sëñ bi man de bëgguma woon a wateel Macky Sall waaye yow de sa jëmm doon tax moo teel Macky Sall loolu nag bu ko ñëpp defee rek Macky Sall am na maa ngi la koy maa ngi la koy ñaanal Mbàkke di la ko yéene ci barke Serigne Fallou Senghor kat Serigne Fallou moo ko fi tegoon te Senghor bu ko fi Serigne Fallou yi teg booba metti woon na ki jàpp woon ne Senghor dana mën a mooy alaaj baara te alaaj baara ba léegi duñ fi yaa ngi nii kon ñu ngi lay ñaanal yàlla ci barkeb sa maam Cheikh Mamadou Fadal ndam lii président wóolu la ba def la tête liste yàlla nañ ci bu dimanche balaa onze heures midi rek nañ xam ne Macky Sall gañe la ngi ci sa wet boo ko yëgee ak boo ko yëgu ndax yàlla lañ koy seeral ndax suñ lépp nga nekk sa wet di la liggéeyal fas yéene nga am ndam indi ne nag la nga xam ne nag yow moo nekk sama diggante yow ak euh, ca kaw ca yooyu moom yi daw yow laa koy bàyyee du ma wax dara ndax xëy na da nga la ca war ñii daal laa am dégg nga seen i jàmbar ma sa yoon wax naa ko Ami Sall nee naa ko man dama daan liggéey kenn musuma jox dara te lépp lu ma amas naa ko andi naa ko bokk ak yéen su yàlla dogalee ni ma dem am lu ma def lépp loo xamante ni suñu borom wërsëgal ci loola noonu laa koy andee fii teg ko bokk ak yéen loolu man loolu laa gëm loolu laay def suñu borom may eh, dogal na am na lu fi nekk jox naa leen ko loolu bëriwul waaye xeeb naa ko li indi lii xëy na mën naa indi leneen ceeb baa ngi nii dinaa leen ko séddale indi ceeb mën naa indi leneen ak leneen leneen kon leen yéen di dama leen ñaan ci kóllëre gi seef ak mbokk gi ak dëkkandoo gi Ami Sall ak Rama ak yéen ñi fi nekk ñëpp bu dimanche na ngeen mobiliser kenn ku ci nekk saw carte danga ko teel a man dinaa teel a fajaru dem ca fani watee kenn ku ci nekk sa carte nga jox ko Benno Bokk Yaakaar muy Macky Sall su yàlla dogalee am na ko wax léegi su yàlla dogalee mu am ndam wallaahi laa si dëggal ko réccu man du ma ci lu leeru du ma ci lu làmbatu man lu wér laay lekk lu wér laay def lu wér laay wax te lii lii mooy li nga xamante ni mooy choix bi gëm Sénégal mooy choix bi gëm Sénégal Sénégal buñ ko taal ñun ñëpp kenn mënu ko génn buñ ko bàyyee ay xale yu ndaw yoo xam ne kenn xamu suñu jikko jumum fenn di taxawaalu di tappale am ci loo am xel koy àggale am riir warut a yóbbaale kenn riir mi bëri na def leen dànk ngeen waxtaane seen jegenaay yi xool li ngeen di def Macky Sall ba mu fi tooge ba léegi kenn déggu fi dara lu jàmm ak salaam nit ñaa ngi xëy nit ñaa ngi liggéey yow mii doomu sa taabal jooju soo xëyoon tey ñu ne bu ko fi teg ndax baal yaa ngi tàkk da nga xam ne jàmm rek baax te booba léegi na nit ñaa ngi lekk ñu ngi naa ngi naan li ci des na mooy adduna bi fépp a métti fi mu toll nii Europe gee ñu nekkoon moo gën a métti fépp fépp a métti waaye lu métti métti ñi nga lekk ñi nga naan ñi nga am jàmm jàmm jooju bu ñu ko yàq bu ñu fexee ba am ñoo xam ne jox nañ leen majorité a na ngeen xam ne sa taabal jii ngay xëy ak keneen ak keneen man mii sama bureau ba kenn dootu fa xëy danañ ne ci danañ tal ne loolu maa ngi leen koy xamal kon daal ñu ngi sant ñëpp suñu fàll. wax ko xamal ko ne ko lépp déglu lépp loo xamante ni mën naa ko te war na ci ay jàpp rek naa ci taxawal ba nga ko waxee fekk ne jëf koy jiitu ko bi nga ko waxee yaa ngi koy jëf yaa ngi koy dox ndax suñu tànk yi ñu fi ñëw ànd ak bokk yi ñu fi jot a jëf lépp rafet te lépp baax te ànd na ak yéene ak jëf ju wér kon ngi lay sant bu baax nit ñi jàpp naa ni xam nañ xàmmee nañ enjeu bi nekk ci président de la République bu war a taxaw am réew te amul majorité à l'Assemblée nationale bariwul njëriñ mel na ni kilifa ko amul baat ci këram oh. te réew mi euh, li ñu fi dégg mooy foo dem danga gis koo xamante ni kii yaruñu ko loolu ci ay bokkam la wala yaruñu ko te ñoom jaxasoon la macha allah jeune bu dynamique bi fi taxawoon di wax nekk un jeune universitaire di. fas yéene gëm ne moom dafa war am ay diplôme pour defar àddunaam message yi mu fi joxe fay na message yu bari yoo xam ne ay xale ngi ci internet yi di ko joxe vision bi mu am vision la boo xam ne moom ñi taxu fi képp am ko da lay wér ne ak association bi mu jiital ñu jiital ko topp ci gannaaw loolu inséré wu na donc daf ñuy dalal xel ci fi réew mi toll ak enjeu bi fi nekk am na ay nit yoo xam ne yëkk seen ay kàddu en général bu ñu demee ba élection nekk campagne pré campagne campagne ba agsi ci de dernière tournant ñu naan 72 heures yi wala 48 heures yi wala 24 heures yi surtout ci dëkk bi ñu nekk di lancer ay message yoo xamante ni pour détruire xelu doomu aadama yi la ñi nga xamante ni xëy na loola mën naa agsi ci ñoom. loolu nag tenté nañ ko ay yoon yoon yoon mais cette fois yi cette année gëm naa ne du ñu leen ko may te du ñu leen xajal pour ñu def ko parce que bu fekkente ne lu ñuy wax la pour ay nit dégg ko di wax ci waxu borom ñaari tur yi jàpp naa ni Serigne Cheikhouna bi ñu xamante ba tey di ànd yàgg na te loolu ñu ko tàmbalee dégg ci at yi nga xam ne ay gone yu xamul fu ñu jëm te xëy na amuñu xam-xam bu mag ñu bëgg xëy siif xelu doomu aadama yi di wax ak ñoom ñoo fi génn boobu langage mais ñun daawuñ ko kon bu fekkente ne dañuy investir pour préparer assemblée quatorzième législative jël doomu dëkk bi di njabootuk sëriñ bi ndax yàlla dogal na moom njabootuk sëriñ bi ñu ngi ci liste yàlla dogal na ay jullit rek ñoo nekk ci liste bi yàlla dogal na ay bokki taalibe ñoo nekk ci liste bi loolu nag boo gisee son excellence def ko day porte ay choix ci tontu ay wax yoo xamante ni bokkul ak li am parce que bu fekkee ay xale la ay mag yu xamu fu ñu jëm te bëgg a nekk seen gannaaw di leen roox di leen wax loolu waxuwul ngir bëgg ñu dugg ci di deful moom fa mu toog ak ñam war a tiisoon li jël ay décision yoo xamante ni jëf ji tontu na wax yu mel noonu ngir ku koy dégg xam ne amul tey amul ëllëg te nekkul ci boobu dynamique dynamique bi mu nekk mooy li ko yàlla dénk te mu jaar ci loxoy doomu aadama ak ci loxoom nan la koy saytoo mais nan la ciy defe li nga xamante ni moo war population sénégalaise te jàpp naa ne kenn ku ci nekk war nga mën a seereel jëfam ci biir Sénégal mais particulièrement dans le département de Mbacké mais particulièrement Touba jëf yi buñ koy xool wax nañ ko fi léegi Ila autoroute Ila Touba doy na ci seere ci jëfam la bokk hôpital bu mag bi mu def Touba doy na seere ci jëfam la bokk te lu ko jiitu hôpital mag la mu faussé ni bii nga xamante ni ci jamono Cheikh Salif yàlla na suñu borom dolli yërmande ci moom te tasu ci barkeem la ay murit jaayante woon li ñu am te booba Macky Sall président nekk foofu bi mu ñëwee ci biir hôpital ba tàmbali na fa fay def boo ni bii boo xaymaa lan ko fay defee mat na hôpital bañ fa joxe ñetti yoon. ñoo ngi koy réaliser incha allah rek mu pare wàllu ndox mi côté bi mu fii ñëw nekk ministre de l'hydraulique nekkoon si beneen loxoy kilifa muy ñëw di liggéey ak moom lam fi doon saytu jàpp naa ne ko yàlla joxe réew mi def na fi ci wàllu ndox loo xamante ni mosul am Touba loolu nag kuy def loolu yoon yi waxaale wuñ ko bërki démb la joxe benn mission bu fi jëm si ñu ànd ak ñoom dem ci sëriñ bi ziare ji ko Cheikhoul Mountakha jóge fi dem ci xalifa général des Baye Fall teg fa pose première pierre tali yu bari yu war a def ci biir dëkk bi te benn bu si rek laal na kilifa yi ndax ba ñu njëkkee teg xeer bi ci ëttu kër maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko teg moo faa jóge dem ba ci kër Cheikh Ibrahima booba mooy bu Daaru Salaam bi nga xamante ni moo war a jóge Mbàkke bi dem Daaru Salaam ak bi war a jóge Daaru euh, kër Serigne Massamba ak bi war a Daaru Karim kër Serigne Massamba ak bi nga xamante ni moo dem tindoo di kër Cheikh Abdoul Moustapha moom Cheikhul Khadim ak bi nga xam ne moo la jóge ci tëli bi dem Daaru Mar naan kër Serigne Mbacké daba sax moom Cheikh Abdoul Rahman ak bi war a jóge ci tëli bi dem kër Serigne Afia Bousso ak yeneen ak yeneen ak yeneen dañ ci dem ba napp bi bu ñuy toog di xalaat menace bi mu nar a def ci Touba surtout environnement wu jumaa ji jaaxaloon nañu bari dañ ci doon def ay xalaat fii may wax yow investi nañ ci ci ay milliards wax kenn xamul ni mu toll te résultat baa ngi tàmbalee feeñ te pareegul donc ça loolu ay réalisation yoo xamante ni def na ko te moment yi ñu toll loolu mu doon def dafa am yéene ak pas-pas àggale ko ba tàmbali fi yeneen kon Serigne Cheikhouna ñu ngi mu sa appui yi nga fi def pour jàppale nit ñi ci élection yi mais jàppale nit ñi ci seen dundani kër mais aussi appel bi nga fi lancé ci sa bopp. wax ko say mbokk wax ko say xarit wax ko say am di jàmm wax ko say dëkkandoo loolu mooy li nga xamante ni moo mën a génne réew mi ci situation bi mu nekk jël nga say responsabilité def nga ko mais aussi defal nga ko ku ko mat a defal ñu doon ñëw di jël si jëf ji ak di déglu jëf ji dégg nañ ko yëg nañ ko jàpp nañ ko ci incha allah amuñu lenn loxo luñ ci manqué la preuve doy na ci kilifa yu bari jamono yëru subaat na leen waxtaan ak ñoom kenn ku ci nekk lam lay wax boo demee da ngay jàppale galas ci élection yii mu nekk pour mën ci génn loolu nag Touba ñor gum ko ñor ak wane ne am na fi yéene te bëgg na ko yeggale loolu moo ko di kon jàppal ne li nga def def ko ko ngir citoyen sénégalais nga di ko def def ko war nga ko def parce que sa mbokk te gëm ne yow yaay nekk tête de liste dans le département réew mi jëf jooju nga jëf taxawaay boobu nga taxaw ñu ngi koy rafetlu waaye jàpp naa ne Serigne Alaaji Abdou Mbacké Ridis ak Cheikh Amadou Fadal lu war a jóge ci ñoom te ñu war a bokk lu ñuy defar jàpp na ne baax rek a cay topp kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di gërëm mbooloo mi dégg ngeen dégg nañ fi li ngeen wax du galaskaltoom ngeen ko seexal Serigne Cheikhouna ngeen ko seexal parce que man maay moom moom mooy man incha allah lépp lu ñu mën ci taxawu jigéen ñi danañ ko def te xëy na yàlla dafa dogal. 48 heures moo tee élection yi ñëw wala 72 heures bu xaw a xam mais am na ay projet jigéen yu fi nekk yoo xamante danañ ci jokk seen Cheikhouna waxtaan ci ak moom mu wax leen ko xool la nga xamante ni lañ leen ci mën a enrôler incha allah le plus ñu génnee ci élection yi fan yu njëkk jigéen ñi dañuy jàpp ne am na ay financement yu fi nekk te ñoom ñoo ko moom président jigéen ñi la ko gis nii dañ leen liggéey fii may toog wax ak yow rek bi ma toogee fii la ñu moo woon ne ma ñu jotoon a enrôler ci semaine bi yëpp camions yi ñu ngi ñëw di leen indil ay frigo yu leen financé ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc projet boobu jeexul mi ngi fi dañu leen ko fi dencal te leen di may loolu mën a continuer ak lu mel ne bourses familiales yi ngeen taxaw jàppale li su Benno Bokk Yaakaar bu ngeen ko defee da ngeen jàppale réew mi pour mu dox bañ a taxaw mais da ngeen feeñal ak yéene président la pour mën a àggale liggéey mais aussi da ngeen ñu jàppale pour li nga xamante am nañ ko yéene taxaw ko askan wi ñu ko def liste bi nag moo nekk nii rawatina yéen soxna yi ki ci nekk jigéen la soxna Aminata Touré la tudd te kon jigéen ñi ñoo am pour yëkkati lii flambeau bi mën a jóg jigéen ñi ñoo am pour war a taxaw lii kon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te ñaan yàlla bu ñu àggee incha allah au soir du 31 juillet dimanche am ni ko sëriñ Cheikh naa waxee ñi fi jaar wax ko ba ñuy àgg ci ñetti waxtu bi ñeent mbir mi leer nañ ñu gañe leen gañe bu leer nañ largement